bis bi tax ñu daje fii di siyaare bu baax sëriñ Cheikh Mbacke Madina di ko ñaanal sunu borom sàmm ko te dëgëral waaye di nuyu mbokki daayira gi nga xam ne ñoo ànd ne ci wetam bi di ko taxawal di ko taxawul liggéey ci barab bi nga xam ne ku fi ñëw sa yaram war naa daw boo dee kuy xalaat it war ngaa xalaat lu sori ba fi sëriñ bi jógee ci mille trois cent trente ñu nekk ci mille quatre cent quarante et téeméeri at ak fukk ba tey ñëw fi jafe ku dikk yëg ne toggoo nga ab coono buñ delloo ginnaaw téeméeri at ak fukk kon nu meloon ñu indi woon fii jaamu yàlla boo xam ne waxul lu dul ne laa ilaha illa muhammadu rasulullah ñu génne ko ci njabootam indi ko ci gott boo xam ne la doon yéene ña ko fi doon indi mooy bu ko fi kenn fekk ngir li muy woote mën a fay dagg ci kenn téeméer ak fukk ginnaaw bi mbooloo mu toll nii daje fii yendoo fee tudd yàlla fanaane ko fi jàng fi alxuraan jàng fi xasiida berndeel fi ay jullit aw yiw wudu jeex dotti ko loolu kon li sëriñ Fallou Ndiaye doon wax léegi nekkal yàlla rekk wóor ndax jaam bu jëf jëf ju sell te yàlla tax jëf ju du sànk lii nag meññet la ci jëf jooju kon ñu ngi nuy di siyaar mbokk yépp di siyaare bu baax sunu maam ju tedd ci tëdd fii nga xam ne ak nekkam fi rek bokk na ci liy firndeel Sëriñ Tuubaa li ko yàlla sedd sunu boroom dogalit muy suuf soo xam ne sunu borom a ko jox Sëriñ Tuubaa donte ay noonam sànq ko moo taxoon indi ko mu ñëw fii samp fi ñaari kër daaru Rahmaan daaru Quddus liggéeyal fi yàlla liggéey boo xam ne mucc na ayib liñ fi jàng ci alxuraan ak xasida kenn xamul nu mu toll mu taalif moom itam ay xasida yu bari yoo xam ne fii la ko taalif jamonoy dox ba sëtam bu sell bu tedd ba ba ko nuru lool muy sëriñ Mbàkke Madina yàlla teg dëkk bi ci loxoom loolu nag azar amu ci ndax jëfi yàlla la te jëfi yàlla amul sud fa ñu ciy ndokkeel mbokk yëpp di ñaanu sama borom bépp yëngu bu ñu fi yëngu ak lu baax lu ñu fi def yàlla na ko yàlla nangu te jotale ci sunu kilifa yi tedd yooyu ñuy siyaare baaxit mbokki Daaru Muxti yi nga xam ne ak njenn ñi ngi ñëw ànd ak mbokk yi di dundal ak di fàttaliku teewaayu sëriñ bi mag bi radiyallahu fii ci Thié muy teewaay boo xam ne liggéey yàlla moo ko lal lëggéeyal bi sëriñ bi doon lëggéeyal yàlla nag la ca jiitu woon mooy tomb bi ñuy waxtaane muy alxuraanu karim nee na moom sëriñ bi alxuraan lu yaakaar ci la koy yaakaar lu ragalit ci lay làqut bu mucc kitaabun bihi narju min allaahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra min al karbi téere bi yàlla boobu nga xam ne mooy jëmmi yàlla ci kaw suuf ndax aw melo la ci melokaani suñu borom yi yonent yàlla muhammad li muy tedd lépp ci ron alxuraan la nekk ndax melaw borom di ko bind la kon mooy jëmmi yàlla ci kaw suuf di lu rëy di lu mag loo xam ne fu ay baaxi moo la baaxul waaye mën nañoo wax ne lu waay ñàkk nag ginnaawal ko ak sàggane ko mën nañ ne moo la ko xañ muy téere boo xam ne amul benn jëf bu ko nit di jëfal te du tonaw lu ko laalit gën lu ko laalut lu ko gën a jege gën lu ko sore jibril alayhi salaam mi yàlla doon jaarale ci moom alxuraan mu ñëw ci yàlla muhammad malaaka yépp jibril la ci gën ndax ci moom lañ doon jaarale alxuraan yonent yàlla Muhammad bi mu doon wàcc ci kawam mu di ko jot li mbooloo mi yonent yëpp moo ci gën ndax ci moom lañ wàcc alquranul karim weeru koor bi mu wàcc it moo gën ci weer yi guddig laylatul qadri gi mu wàcc moo gën ci guddi yi màkk gam wàccoon ak madina gañ ko doon jàng ñoo gën ci dëkk yi waaye sëriñ daara bi toog di ko jàng di ko jàngale it moo gën ci nit ñi alxuraan lu ko waay laale la gëne barab buñ toog di fa tudd alxuraan yërmande yàlla di fa wàcc malaaka yërmaay di fa toog di peeg nit ñi di leen ñaanal di leen sàmm loolu nag ku ko am war ngaa xam ne am nga lu rëy alxuraan nag yàllaa ko taqale ak i coono loolu nammeeloog suñu borom la firnde ji mooy yonentu yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bi alxuraan dëkkee wàcc ci moom dafa jaxasoo ci am xunt la nekk di jaamu yàlla di beru te fekk muy lu mu baaxoo def benn bis la jibril ñëw feeñu ko xaw koo sonal nag ko ne ko jàngal mu ne ko man mënumaa jàng mu bës ko ne ko jàngal mu ne ko mënumaa jàng mu nag ko ba mu sonn ne ko iqra bismi rabbika di xalaq iqra wa rabbuka lakram alladi allama bil qalam allama al ma lam ba jibril demee ñemeetu fa dafa daw génn dellu si ci këram fekk fa soxna Xadija soxna am su tedd soosu nettali ko lim gis nekkoo ko damaa yaakaar damaa jommi mu ne ko déedéet yow ni nga baaxee ni nga yiwee ni nga amele nit ñi njëriñ yàlla du la teg mukk ab safar defal ko dalal ko ba xelam dellusi mu ànd ak moom dem ci mbokk mu ñuy wax waraxatu Nawfal fekk ab jàngkat la woon bu jàngoon téere jiitu ne ko dégglul sa mbokk mi li muy wax yonent yàlla Muhammad nett la mu gis ak li ko Jibril wax Waraqatu ne ko yow ab yonent bi lii la dikkal mooy la daan dikkal Muusa ak ñemel ne moom kon yàlla dalaa tànn def la nga def yonent ne ko day ak a neexoon ma fekke bis ba ngay woote say mbokk dañ la wet dañ la génn Ibrahima salaam ne ko man mii sama mbokk yi dañ may génn dëkk bi mooy ko lii ñu la sant ku ko mas woote ñu génne ko dëkkam waaye bis bu ko fekkee danaa la jàppale danaa la taxaw ndax boobu war a xatu mag la kon mën nañu wax ne foofa la coono tàmbulee taqoo alxuraan ginnaaw ki ko wàcce woon ci moom caw tiis dañ ko doon wàcce àggoon na ci saa bu alxuraan dal néew di wax yu bi bu doon sedd ba nit ñi kof ko fi ndax liwu day ñaq bay siit moom ñu koy salaam inna sa su borom moo ne dina dina la jox wax ju diis gan yoo xam ne dékku ko yomb kon dafa mel ne diisaay bi ak coono bi mu àndal foofu la tàmbalee ndax dafa rëy aw melo ci melokaanu sunu borom balaa tàbbi ci dënnu nit dana kon loolu it jullit bu ne war na ko gë yëg bàyyi ko xel ne alxuraan ci ak coono la wàcce yonent Yàlla Muhammad ndax daara ji ñëpp ci daara yi mooy xuntum xiraa miñ naja woon yonent alayhi salaam doon ko jàngaloo donc bi njëkk jàng mooy Muhammad alayhi salaatu wasalaam te gis ngeen coono yooyu ragal googu mu àndaloon sëñ daara bi njëkk a jàngale mooy jibril alayhi salaam aaya bi njëkk a jàng jëkkoo koo tëral mooy iqra bi rabbi loolu lañ ci jëlee gi mbokk yi mooy xeetu lislaam xeetu jàng lañ ummatu xiraa lañ ku ci bokk war ngaa yëg ne jàng dalaa ndax ndigal li njëkk wàcc ci sab yonant mooy demal nga jàng ndigal li njëkk wàcc sab yonant mooy nga demal nga jàng kon yittewoo ko fexe ba sa njaboot ñu jàngal leen loolu war tee fi bépp jullit la rawatina taalibu Sëriñ Tuubaa bi nga xam ne li ko fi indi woon mooy yeesal si diine jooju noonu la alxuraan ñëwee di wàcc diirub ñaar fukki at ak nangam léeg-léeg xew-xew bu am ñu laaj dara yonent bi mu jaaxle alxuraan ñëw tontu ko léeg-léeg mu toog ba mu yàgg alxuraan jékki-jékki Jibril ñëw ci wàcc wàcc ci moom ci anam yooyu ñu wax ba alxuraan mat ba keroog alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakumul islaama diina wàcc ci kawam mu xam ne diina ji mat ba ca mujj ga alxuraan aaya ji ñu wax ne mu mujj wàcc ñëw wattaqu yawman turjauna fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat bàyyi leen xel bis boo xam ne yéen ñëpp daañu leen delloo ci seen boroom te kenn ku ne la mu fàggu woon danañ ko jox ba mat sëkk duñ tooñ kenn yowmal xiyaam ku fa am lu la naqari bu ko jëñ kenn jëñ ko sa bopp tooñ amu fa loolu moom mu wàcc ci alxuraan boobee ba tey nag yërënt bi jël ko jàngal ko saxaaba yi bokk na ci li ci amit mooy saxaaba yu néew ñoo wattu woon alxuraan jëpp dañ leen di wàññi ci baaraam naan fukk lañ ak fukk wala fukk ak ñaar ñoo wattu wax alxuraan lépp ñu ci des ab lim lañ ci wat ndax ñoom bokkoon na ci seen yitte ku ci mas a jàng yenn aaya da wax naa dem jàng ko ba jëfe ko doole ñu jàng leneen dañ doon lënkale jàng ak jëfe loolu ñu ci des it ñu bari ci ñoom bi alxuraan di wàcc ay mag lañ yor nañ kër tax na ñi ci mokkaloon alxuraan ñu néew la waaye teewut ñu sàmm ko yàlla sàmm ko ci ay ñu di ko bind ci ay ay ay yax di ko bind ci xobi ron wala wala tàndarma nga xam ne pexe mu ne def nañ ko ngir alxuraan des loolu lépp nag day dëggal li suñ borom waxoon inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafidun yàlla nee na mu wàcc alxuraan dama koy sàmm waaye fi mu jaar xame nañ ci ne loxob yàlla ci tege waaye kon far na bu yàgg ndax noonu yi ko doon xeex foo takk seen doole na pexe mooy def nañ ko ngir xeex alxuraan am na ci ñoom ko waxoon ne jullit ñii fii ak téere bii mi ngi seen biir ñu di ko jàng kenn mënu leen dara kenn mënu leen soppi ci lañ waxoon tubaab bi bari ne bu ngeen bëggee dox seen not ju not jullit ñi fexe leen ba dox seen diggante ak alxuraan ñu bari nag réussir nañ ko bari na barab yoo xam ne fexe nañ ba alxuraan ñoratu leen yàlla nag baaxee ñu moom fii ci Sénégal walla fii ci sowu jant ay jàmbaar ay mbër ay kilifa yoo xam ne ba diine yàlla ji doxee ba ak si seeni loxo te bokk na ci tawféexi suñu borom jaay si andiwu ko fi ab xuloo andiwu ko fii ci Afrique sowu jant jàmm moo fi indi lislaam ay commerçant ay wërkat ñuy dox buñ dikkee di jëflante ak nit ñi bu julli jotee ñu taxaw fay julli africain yi nekk ay nit ñu naturel gis ne ñii kat niñ yiwee lu baax li ñuy def ñu ne lii lu ñu ne leen diine yàlla la ñu ne bokk nañ ñu njëkk a dugg ci diine la ñu duggee tàmbul di jàngale islaam ànd ak seen seenu ko ajami yee seen làmmiñ sëtu ara arab yi ñuy wax jëkkuwuñ ko xamuñ ko am na ñoo xam ne seen làmmiñ mënta wax arab yëpp ànd ak loolu fexe nañ ba mokkal téere yàlla bi am na ci ñoom ñoo xam ne boo leen maseen a laaj ndax mokkal bi alxuraan mun leen mën naa koo bind de waaye bu koy wax ab arab bi xamul dara ci fi du xam la muy wax ndax xam ne wuñ arab yi seen làmmiñ mu miinu ko waaye suñ la bindalee kaamil ab yàq du ci nekk loolu njàmbaar la ngóor ci jamono joo xam ne këyit gu ñuy binde amul daa ju ñuy binde amul bokk na coono yi mag ngi daj ci alxuraan mbooleem jëfandikukaay yi ñu doon jëfandikoo ngir saxal fi alxuraan ñoo ko ñoo dem ci gott bi dajale fa ay xob dëbb ko jàmb ko def ko daal dem ci cin xoos ko gàccal ko def ko daal nga xam ne bu doon bind kaamil li war a xonq li war a ñuul li war a mboq lépp ci ñuulitu cin ak ay xobi garab ki lañ koy jëlee araf yi nga xam ne seen làmmiñ xamu ko ñu fexe ba nature bi leen wër ñu ñu fexe ba lënkale ko moom ngir bëgg lan gone gi ñuy jàngal liñ ci man koo leer buñ ko jàngal ayin ayin gi nga xam ne ci njëlbeenu baat lay nekk ñu ne ko ayinu gémmiñu till ba ñu dëkk ci àll bi xam nañ till xam ne gémmiñ gi mel ñu ne ko ayin gi ñu gémmiñu till lay mel waaye ayin gi nga xam ne araf da koy jiitu wala araf topp ko ñu ne ko ay dégal ayinu dégal ñi war fas dégal boobu xam ne ni mu mel noonu la ayin di bindoo topp araf yi par benn topp ko par benn xaa long xaa dem dellu ngir rek fexe ba jariñoo alxuraan donte seen lam mënu koo xam ci loolu lañ topp dem ci xat bi ak selen bi sot ci ay xalima di ci bind alxuraan karim dagg góor garab yi dagg ci ay àllu booba jumtuwaay yi ñuy dagg garab sax amul waaye fexe woon nañ ba ñëpp jàppalante ñu liggéeyal alxuraan ñi àggoon ci foo xam ne alxuraan nuróo gi mu nuróo araf yenn araf bokk bokk ak li ci nekk ci loo xam ne du reegal bu ñuy xam danga koy mokkal na mel rek ñu daal di sos ay boole ngir tënke ko alxuraan araf yi war a tumaas araf yi war a sàdda arab nañu fexe ba nit ki mokkal ko doonte déggut arab bokk na ci li gën a yéem li gën a yéem naar yi nit di tari alquranul karim ju rafet te xamul benn baatu arab ba bu yàggul rek mi ngi xew am na ci xale yi soxna xadi Dramé concours bi mujj dem bokk na ci li jaaxaloon naar yi alquran ju rafet di muy jàng yéeme gi ëpp na te xamul benn baatu arab loolu ci liggéeyu mag ñi la bokk ñu gis ne téeréb yàlla la wax yàlla nañ def lépp ngir mu dugg ci dënni nit ñi bi tubaab bi dikkee gis mag ñeek alxuraan ñu ne ci àll bi di jàngal gone yi di ko def ci seeni xol kuñ nopp ci yow it ba mokkale alxuraan yitte ji jiitu sa yitte mooy nga fas yéene yow it mokkalal ñeneen doom joo am nga gëm loo ko ne ko sa ndono mooy mokkal alxuraan bokkoon na ci seenu yittewoo alxuraan jamono jooju àggoon nañ ci koo xam ne say bàyyi say maam jàng alxuraan wattu ko moom lañ la xame boo wattuwul alxuraan bindu kaamel soxna doo ko am ba tey xam nañ ci taarix mag ñoo xam dañu dem ba doon magi jëm bëgg soxna dem ci barab seen nijaay ne leen man moom may soxna doomi soxna ju wëttu alxuraan ñu laxas teg seen jë ay at ñu dellu si ak seen alxuraan ju rafet yàlla it buy sàmm alxuraan ci lu ne la koy sàmm bokk na ci anam yoo xam ne sax day mel ni am folo woon waaye sunu borom moo ko jubloo woon sàmme noonu te sëriñ mag bi wax na ko ne laawaan mi amoon yàllaa ko doon téyal alxuraan ndox dañ ko doon mokkal di ko tari tari bu yéeme waaye nag di ci boole lu ne loola bokkoon rek ci da doon tax nit ñi di ko xàmmee ku mas a mokkal alxuraan boo ñëwee ci dëkk bi buur ngay doon da ngay jékki rek ne sëñ diw sangam sa kër laay ñëw ngoon tari fi alxuraan ab gàtt lañ may reer boo dëkkee ñu wër la ngay tari waaye nag dañ ci boole yu bokkut léeg-léeg jàllale tànk soo nee wala aadiyaati ñu ne dabaxan ak yañ koy booleel bi sëriñ Tuubaa ñëwee nag radiyallahu anhu dëgëral alxuraan joojee waaye nag dindi la ci raxoon te bokk ci lépp yittewoo alxuraan ci anam goo xam ne moo sut a gis ci taarix ku ko yittewoo noonu teel ko wattu lool lool sax nag bi mu ko wattoo ba noppi toppaat na diir bu yàgg di wër ay sëriñ di wérlu alxuraan booba ma ngi siraat loolu da ngay mokkal xam ba tari ko waaye foo dégg borom alxuraan da nga dem ci moom jàng fa mu déglu la ba nangu la ne mokkal nga nga door a yëg ne mokkal nga alxuraan loolu sëriñ bi def na ko ci Saalum ginnaaw bu mokkalee diggante Bawol ak ak Jolof fii Jolof lu bari ci alxuraan fi la ko jàngee ci maamam Tafsir Mbàkke Ndumbe ak nijaayam sëriñ bu soobee waaye jàng na ci ñeneen ñum ñoo xam dafa doon dafa doon wéral mokkal ko mokkal gu rafet liggéeyal ci yàlla liggéey bu rëy waaye ba mu demee ba taxawit bokk na ci lim doon nawe nit di ko ko fonke wattu ci réew yàlla bi yónni na gone mu ne bëreet daw mu waar ko ñëw mu ne ko su ma la yónnee te day dox ndànk ndax yow da nga diis alxuraan di nekk ci sa dënn ku mu nekk ci moom bu te di daw doxal ndànk dox yoon bi te ñëwaat fonk alxuraan taxoon na mu ne ñu xam ci moom ne képp ku ko yit ab kaamil boo demee say bokk ñee la am na benn naar bu waxoon ne ku yor sa alal téyel fii ak sëriñ Tuubaa ngi nekk njaareem may mën a bind kaamil ku amat sa alal téyel suma soxlaa mu faju ndax bind kaamil yit ko te la may jox faj na sama soxla loolu tax na mbooloo mënul jeex bind alxuraan mokkal ko ndax lan yëg nañ ne Serigne Touba fu bëgg ak cër da nga da nga yóbbu alxuraan loolu nag aw yoon la woon ci xemmeem la nit ñi téere yàlla bi booba kottu alxuraan soo ñëwee ci kafaaku sëriñ bi ngan gaag taraanga mbooleem ku fa teew di mag dalay ñee fii ci Jolof kirim fekk na ko fi di gone gu ndaw bàyyi di ko fi sëriñ bi ne ko noo def ak téere yàlla bi mu ne ko mokkal naa ko sëñ da ko jël teg ci kawam radiyallahu anhu jox ko mbubbam boppam fekk bàyyam ci mbokk day day day jox sagari njaam waa ba way juróom mu ne ko ay ma ko su bàyyi nangu solal ko mbubb gone gu ndaw boobu sëriñ Tuubaa pour lu lépp da doon bëgg nit ñi ñu xemmem alxuraan fonk alxuraan loolu it moo taxoon mag ñi mbooleem sanc yiñ sanc ay daara la bépp dëkk buñ sanc buñ mas sanc nañ xam ne daara la Tuubaa ci gën a mag gën cee barkeel waaye boroom daara la ko doon sanc wajaalhu daban maskana taallumi wa mawdi fikrati wa tafahum loolu la ñaanoon boromam dëkk bi na des di daara mbooleem dëkk yi mag ñi sos ci ndigalam moom itam walla ndigalu njabootam yépp ay daara lañ ñu jàng alxuraan di ko jàngal di ci yar nit ñi den ci taxawu nga xam ne li nga jiital ci sab liggéey mooy dem jàngi alxuraan fii bañ nañ ko ba li ñu laaj nit ñi mooy fu mu noo def ak alxuraan gone gu toll jàng bu ñu la gisee seen jàmmante mooy foo toll mooy liñ gëm mooy gone wërta mën a tool ak jàng ci jàng te njàng moomu nag sëriñ bi xàmmee wu ci woon góor ak jigéen mosu ko bokk itam mosu ko bokk loolu na ci li am solo lu ma defaat la sëriñ bi liy jëmmal loolu mooy daaraam bi mu njëkk a ber ne fu ma a nekk daara la waaye bi mu beree daarul alimul xabir yóbbu fa sëriñ Ndaam Abdourahman Lo da ko faa ber ne foofu ku jàng rek fay ñëw yóbbu fa jàngalekat boo xam ne benn mission la am muy jàngale ak li jàngale àndal muy yare ñu sëriñ ndam waaye yóbbu fa nag ay góor yóbbu fa ay jigéen yóbbu fa ay mag ak ndaw loolu li ci jànge mooy ñëpp war a jàng góor war na jàng jigéen war a jàng nit ñëw na ci sëriñ Tuubaa ñaa ñu toog ñuy wax ñuy waxtaan kenn gi di ko laaj na ko ana doomi diw ja mu ne ko bu doon góor mata daal jàng sëriñ bi ne ko ba muy jigéen nag mooy wax na ko kon jigéen doon jigéen te wut a jàng te sëriñ Tuubaa jox na ci misaal ak njabootam sëriñ Daam Abdourahman Lo ñu bari ñoom moo leen jàngal alxuraan bañ mokkal bind ay kàddu soxna may noonu Kubra kenn la ñu soxna Joob Mbàkke mi ñu tuddi soxna Faati Isa mii sëriñ Tuubaa tuddi ko kenn la ci ñoom ab kaamil la mi ngi ko ñu di ko te jàng waaye soxna Fatou Diop way juru Cheikh Ahmadou Mourtada bi muy ñëw ci kër sëriñ bi alxuraanam àggul sëriñ bi da koo andi ndaam ci sëriñ ndaam Abdourahmane Lo mu àggale fi alxuraan ba bind fay kaamil sëriñ man Lamine Diop da man Lamine nee na bind na juróomi kaamil kon loolu it bind bu ñu war a jël la ñu xam ne jàng amul góor amul jigéen waaye amul mag amul ndaw ku ko def góor rek weesoo ko ci yow. loolu nag dafa laaj lu bari sëriñ Tuubaa joxe woon na ci misaal dafa yóbbu sëriñ daam ci ab dëkk bu mu sañ ci def fa kër gu baax bu mucc ay yóbbu ko fa teg fa dongoy ay jamono daa santoon Cheikh Ibra Fall ak sëriñ Mandumbe ñoom buñ bàyyee ñëw fi indi dund ko daara kon nañ bàyyi xel ne bu taxawee fenn li ko yor société bi ndax daara du alali kenn dëkk bu ne ña fa nekk seenu njaboot ne fa ñoo war a seq daara ji sëñ daara bi liggéey bi jàng ak yare société bi yor kër gi yor daara ji yoraale ko moom ak njaboot bi daara tàmbalee am jafe-jafe dëgg-dëgg mooy bi société bi teggee loo xam bi daara sëñ daara bi am yéene jàngal bopp njabootam jàngal njabootu jullit gi te amul ay moyens loolu moo jur lan dongo yi tàmbali ñu leen di laaj dara ngir mën a jàng danaa ko faral di wax internat yi ñuy wax ne léegi dañuy fayu jàng alxuraan di fayu loolu xamuñu ko woon man damay wax ne jàng ngir yàlla kese kese musta am ci àdduna ci lu ñu xam ci taarix loolu am bu njëkk dongo bi di fayal boppam ba bàyyam di ko fayal fayal boppam mooy lan sëriñ daara ci jamono bokk na ci ñi gën a jekk ci dëkk bi toolu yaatu lay am at mu jot ñu sàkkat këram rabataatal ko ay néegam lob bu matt bu mag lay am lu ko waraloon dongo yi muy jàngal ñoo koy liggéeyal kon dongo yi seen doole lañ doon jàppalee sëriñ bi ngir mën leen a jàngal loolu ak fay la boo ko boo koy seet boo jëloon ni di ko liggéey la boo léegi danga koy fay dara am ñu dem ba am ay moyen gis ne loolu day yeexal njàng mi li sëriñ bi doyee liggéey bi ñu féete ko ko di ko jox ab lim alal mu mën di dund dundal njabootam moom it mu ne gone yi kon toog leen di jàng waaye buñ demee ba liggéey boobu amatul te joxekat bi joxeetul luy xew sëñ daara bëgg a jàngale kon dongo yi jàng benn xiif rey leen mbaa duñ jàng loolu moo fi indi yelwaan indi fi tumuraank yi ñuy wax ba ñu bari jàpp ne daara ak tumuraank ñoo ànd tumuraank gaan ak daara mooy mettitu jàng wi coono bi ñu lay teg doo neex lu bari waxtu wu ne yaa ngi jàng mu diis gan na ci sa sa bopp ñu di la ko sol waaye nag tilim sol ay sagar di xiif yooyu du cosaan ci daal ak néew doole ak ñàkk pexe moo ko fa indi woon te bu société bi royee ci Serigne Touba loolu jóge fi barab bu ne mën nañ fa samp daara ñëwër barab ba jàppalante ci daara ji ñëwul barab ko jàppalan ci daara ji kenn ku ne féete fenn daara su boobaa jàng dana am nit ñi yar leen te it nag bis buñ sàgganee ba daara jot fi moom baye boo ngeen taxawal ak dëj ñeel xeet wi lu ngeen fi gis muy baax rek ak wu yiw daara jot fi indi daara ji ñu jàng alxuraan dafa yare nit lu fi baax ñoom ndax dañ la yar sa jikko defar la te alxuraan dënn bu mu jiitu boroom mën nañoo rafet ci moom jot ci ne bu jaaree ci safaani bu ci yàgg kon ta sàmm loolu warteefu ñëpp la ci jamono ji nga xam ne ñëpp yëg ne alquran jafe-jafe bi amoon yokku na ndax dafa mel ne ay noonam ñoo jël seen ngànnaay fas yéene gàllankoor daara faladal di xeeñtu seen daara yi dëgg la am na yu fay xew yoo xam ne gënal sax sëñ daara bu ko defee ñàkk pexe la naa ci misaal coow li xew bu yàggut fu nañu ko awut awutee muy jéng ab donk kenn waxut ne jëng baax na sëñ Tuubaa da ko doon tere xam nañ waaye li ko fi indi woon moom moo tax xam jamono ya mag ñi daan jéng dong booba lu dul jëng-jëng bu gën àll bu mel nii lëndëm këriis ay bukki ay gaynde ne ci àll bi ñu andi fi gone war koo jàngal war koo yar te xel mi toogut su guddee mu tëj njëram fuy mujj bukki yi añee ko mbaa ñu reere ko ñu gis ne loolu lor la kon nañ ko téye ngir bukki du ko lekk te alxuraan dem ci moom loolu moo doon cosaan ndax boobu amul benn moyen boo téye sa gone bu dul téye tànk yi ngir mën a jàng waaye ngir rab yi àll yi bañ ko lekk man xam naa ci ma waxe yéen mbokk moo xam ne ci daar la nekkoon di daw làqatu ci garab guddi bukki mar na bëtam ba ko sëriñ ba gisee danoog yow day baaxee bokk moo la dal waaye kon kenn waxatu bukki ñëw na tiim ku mar bëtam jàll mu newi sëriñ ba gis ko xam ne lii bukkee ñu gis tànk yi romb kon amoon na illa waaye jublu soxore nit ni ko ñeneen ñi gisee jàpp ne ak njaam la ak noggatu nit ñi la ak mbugal la jamono weesu na ko demul noonu waaye su jamono doxee nag nañ dox ànd ak moom kon du ma wax mukk mun ne jéggi dafa baax wala dañ nañ bàyyi nit ñi di ko def man du wax loolu waaye nag war nañoo xool li ko fi indi lu lu taxoon ñu jéng ñi koy def buñ gisee ne ak nite laaju ko ñu dimbule leen bañ bàyyi ko waaye am am nag lu luñ mën a fexee ba gone yi jàng yaru bokk na ca xemmeem loo nit ñi daara ni ñu xemmeem loo nit ñi yeneen jàngukaay di ko rafetal jël ci alal jurul jeex daf ca ba xale bu fay dem sax day sawar teg ko ci condition yu baax boo tegee barab boobu teg daara gone goo tànnal mu tànn fële waaye bu jàppoon ci daara ba daara xemmeemu tubaab nit ñi dañ bëgg alxuraan loolu nag buñ ko séenu ci ñeneen ñi njàng yi jàng njàngum àdduna mi tey ñi koy financé yàlla taxut bëgg wéy di yilif nit ñi moo tax ay milliards la def ci njàngum Sénégal ak dëkk Afrique yëpp waaye bëgg seen culture des moo tax ñooñu parewuñ mukk pour jàngal nit ñi alxuraan seen alal duñ ko jàngale alxuraan loolu nag jullit ñi alal yi yàlla dina ci loxoy jullit yi ñoom ñoo war ñoom itam taxaw seen taxawaay ngir lislaam tasaaro fexe ba taxawal ay daara taxawal ay jàngu yu mucc ayib di xemmem loo ndaw ñi téereb yàlla bi roy sëriñ Tuubaa ci ni mu doon fonkee ku jàng alxuraan ak ku koy jàngale di jox wàccuwaay wu rëy soo dikkee ci barabam du la bàyyi nga toog ci suuf mu la wal dara ngir wormaale ko téereb yàlla bi nga bi nga bi ne ci yow loolu bokk na ci li nga xam ne war nañ ko mën a jàng ci Sëriñ Tuubaa ci jafe-jafe yi am ci daara bi ci des nag di segg daara am na rax am na rax wër ni ci mag ñi doon duggee ngir yàlla yëg ne li yonent alayhi salaam wax ne ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan di ko jàngale loola lañ xamoon ba tax ñu dem sampi daara daara it boo gisee lor yi bokk na ca daara ji ñuy ak kër goo war a dëkke la nga sopp ko daal te bu dee barab yi njàngaleen moom dañ koy waajal ngir mu nekk jàngukaay nga xam ne barab bi dongo yi toog lim laaj ci ubbiku lim laaj ci féex ngelaw lépp dañuy ne bu dee daara ji nag sëriñ diw mooy am yéene amum néegam boo xam ne ngir fanaan ca la mu sopp ko daara ñaari nit wala ñett war faa dëkk fukki dong dëkk fa jafe-jafe day day tàmbalee am ndax bëgg naa jàngale te amuti moyen yooyu yëpp nag bokk na ci yi nga xam ne jullit ñi war nañ koo càmbar jàppalante ci seen biir rafetoon na tey saa bu ñu natt ab dëkk quartier bu ne ñu ne kat fu juróom fukki kër genn kër ga daara lay doon juróom fukki kër yu ne ñu ne genn ga daara lay doon genn ga jàkka doon genn ga fajukaay lay doon genn ga ab ja lay doon war nañ tax mën a génne ñeenti kër yi nga xam ne aajo yu nit dina ci jëm su boobaa carte bi mooy yor loolu daara ja bu jël jàngalekat jotee ñu jël ko ñëpp jàpp jàpp ci daara ja su boobaa daara doon jafe-jafe waaye mbooleem daara yi ñu xam fii amul ci benn barab boo xam ne dañ koo sosoon bàyyi ko fa ngir mu nekk daara jëm ñi da koy moom ni damaa am yéeney jàngale alxuraan liggéeyal yàlla kon sama kër laay def daara kër gi nag boo ko defee daara te ñim bindoo mënta nekk daara mbooloo ma bu mu fa dajee rek jafe-jafe am te loolu mooy li am ñu di ko gis waaye ñu defaloo ak dalal suñu xel ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ak lu metti metti lu mu jafe-jafe saa su nekk ngeen gis su boobu di feeñal loolu ndax gis ngeen bi daara tàmbale am jafe-jafe yooyu àll bi dox bay mbay nii melatul noona sëñ daara mënatu ne ci àll bi ndax àll bi da nga daan nekk dongo yi di ànd yow di liggéey nga mën leen jàngal léegi ne dangay ngay nawet ba nawet bi jeex doo ci am loo mën a dundee loolu tax ñenn ñi tuxu ci taax yi biñ tuxoo ci taax yi jafe-jafe judduwaat dëkk ñu siis ñoo xam ne gone yu bari ñu dégg am na ci barab yoo xam ne liñ doon jàmbat mooy dañ ne gone yi bu ñu jàng dañ leen tànkal quartier bi. pour noppalu la waaye waru su ko indi ay gone ñu jàng di yuuxu ca kaw ne di tànqal waa bi foo xam ne saa boo koy yëkkati kàddu yàlla jàmm di fa wàcc xéwal di fa dolliku ay jullit di ko jàmmat waaye yàlla daf andi ñenn xalaat tàmbali internat jël ay gone wut kër gu set di jàngal njàng mucc ayib ñuy sol yére yi set lekk ba suur bu sangu jotee ñu sangu di wattu alxuraan ci diir bu gën a gàtt bañ ko xamee woon donc tey jii saa su ne ngay gis kéemtaanu su borom ci daara yi xam naa fi gone boo xam ne sëriñ daara bi ko doon jàngal nee na li ñu jàng alxuraan matul bi muy dal jàng bàyyam da ko indi ci daara ja fekk mu sëñ daara ba mu wàcc ko fa nga xam ne sëñ daara bi sax jàppoon na ne bu ko fekkoon du ko bàyyi ndax tuutaay bi mu dikkee fekk ko fi mu ne ah naa ko dal rek laata ñu mu fi am ñaari at tari na téere yàlla xam naa ci daaray Poroxaan di gone goo xam ne ñi ko doon jàngal nee nañ bi mu tàmbalee jàng ba ni mokkale musta gàpp musta gàpp loolu suñu borom moo ci wane boppam gone yooyu it déglu luñ ci gone goo xam ne tari na téere yàlla di ci lu yées ñeenti wax loo xam ne moom na bokk bokk na ci ña ko sere lu yées quatre heures de temps tari nañ téere aw yàlla bi kon loolu bokk na ci li ñuy defaloo jàpp ne buñ jàppee te bàyyi su ma doon lim looy nag ñu ñëpp war nañoo yëg ne bu kenn toog di seenu ne moom tubaab bi ak ñi ànd ak ñoom doon seeni dongo nekkal leen fi danañu taxawul alxuraan moom jëru kenn di ko seen seen ndax culture tubaab dafa safaan noog li alxuraan di jàngale ñoom soppi xeli nit ñi def ci ak tubaabee mu leen tax jóg te alxuraan dafa ñëw ngir def nit ñi jaamu yàlla te bu ngeen ko seetloo bépp barab bu alxuraan bari ñu ko wattu bari fa culture tubaab yaatuwu fa sëriñ tubaab bi nga xam ne radiyallaahu anhu bokkoon na ci mission jàmmaarloog tubaab bi ci kil am bi mu bëgg mu tasaaroo mu ko fi jële te woon na tubaab ci wàll boobu jàngal nañ yar leen ba nga xam ne tey ak njabootam ñooy dem ci digg tubaab ya ci digg tubaab la dem boo gisee xam ne bawol lañ dëkk ay bawol waa pire lañ di liggéey di fa jël alal di ñibbisi si doon liñ doon te loolu wuute na bi tubaab bi njëkkee ñëw ñi njëkk a yar dugal leen ci ay école bañ jàngee ba ñibbi si liñ njëkk a def mooy xeeb seeni bopp duñ lekk te ñu bokk lekk jàppale ay dof jàppale ndox mi ñu naan léegi dee ku ci am kër ci taaxee bu sa bàyyi ñëwee nga ne ku ma dëkk yow bu yendoo du fanaan seen relation dagg nga des dégg tubaab parce que boo demee ci tubaab ga amul mbokk amul bàjjen amul nangam nit jabaram ab kël boobu ak doomam famille loolu la foofu ñu commencé ko koppi bokk na ci li taxoon mag ñi bañ tubaab bañ njàngum tubaab boobu mag ñi ko doon bañ du làkk wi lañ doon bañ waaye njàngum tubaab jamono jooju moo culture benn lañ ku ko jàng soppali ku nekk tubaab parce que li gën a not sax ñoom daawul ne jàngal xam-xam boo xam ne boo noppee mën cee liggéey jariñ ci saw xeet waaye li ñu doon jàngal mooy culture ngay làkk-làkk yu neex yor seen aada ak seen i culture di sol seeni i col Sëriñ Tuubaa ñëw xeex loola yëmul sax moom ci xeex ko ci tubaab ba ci arab sax yi muy jàng diine diine la jàngalu waaye la cay dëj naar da ko bàyyee naar yi ndax ñaar yu la xam-xam ak culture bokkul xam-xam leen jàngal moo tax nga gis comme yar ba nopp ci yow alquran ak xam-xamu diine mën nga koo jekku lépp nga fekk ko waaye nag doo génn li nga doonoon ndax li ci safaanuwul diine sañ nga ko téye ndax mooy sa aada ñu téye seenu col yi ni ñuy dëkke ni ñuy jëflante waaye nag di ay jullit tigi loolu ñun war sàmm ko suñu warteef la te ci daara lañ ko mën a sàmm mbokk yi te suñu borom it wane na ne mën naa nekk fi mu ne nii xam naa ay école yu bari yoo xam ne seen liggéey mooy dañ lay wax ne la gone gi mokkoon alxuraan la ñuy jël li ñu war a jàng juróom benn yaat ñu jàngal ko at loolu sëriñ Fallou mi ci daara yi xam na loolu juróom benn jàngal ko ñetti at bu dee ixdaad yi ñu di ko jàng ci ñeenti at ñu defal la ko ñaar gën jaa bari ñetti at fekk naa Maroc benn xale boo xam ne baayam da ko dugal daara ci Dakar ba muy jàngi yeneen morom yi bokk yi morom mel teel dañ leen dugal école moom ñu dugal ko daara gone ga jàng na fi alxuraan ba mokkal ko jàng majaalis ba jeexal téere yi dem dugg école njëkk leen am ba ña daloon moom jàng na fi alxuraan jàng na fi diine dugg ci école ba njëkk leen am ba fekk naa ko Maroc muy def mas nga xam ne yóbbaale alxuraanam yóbbaale xam-xamu diineem te lañ soxla woon ci tubaab mu yóbbaale kon wax mukk ne nañ sànni tubaab ko jàng xam-xamu adduna la Serigne Saliou Mbacké raw di rax daa waxoon ne arab diine ñu boole waaye tubaab àdduna ñu boole waaye tubaab la ñu xàmmee ci lañ soxla mooy xam-xam ba waaye du culture xam-xam ba ci am njëriñ ñaari tubaab du ko jàngal ni ku ñuul ñi ci fëlloon ba am ci xam-xam bu ñuy soow ñu mel ne saxante jóg ñoom tubaab bi daal taxaw kenn mu ci effacé leen ba mu faatoo bagage yoroon ca laboratoire am dañ koo sàcc yóbbu dañ koo sàcc yóbbu kon ñoom yéenewuñu xam-xam waaye nañ ñu def ay tubaab yu ñuul loolu nag ñun ñoo ko war a xam war a jéem nañ ko saafara te Sëriñ Tuubaa war nañu yoon bi kon fexe ba daara yi ñu fonk ko loo bëgg bëgg sa doom xam-xam ak day jiitalal ci moom alxuraan ginnaaw mën nañu wattu alxuraan bu mokkal ko jàng bu mokk jàng xam-xam ba pare doo tardé njàngum tubaab ma loolu xale bi ne foofa day xam diineem te ki jàng tubaab du ko rawal dara bis bu àggee ci gone goo xam ne ab médecin chef la jiital hôpital te bu ajjuma jotee mën dem jiite jumaa ja su boobaa yaakaar yaakaar dëgër te lu mën a nekk la yoon wi koy mayee Sëriñ Tuubaa xàllal na Cheikh Anta Diop mi ñuy soow ci xam-xam mag ñi wax nañ ni fii ci njëreem nekkoon na ci daara ji jàngal Alxuraan nga xam ne loola am na lu mu ko ubbee man nekkoon naa ci école boo xam ne ab chrétien daay ñëw ne doom ji daa bëgg ñu jàngal ko arab ñoom du ñu wax alxuraan arab la ñuy wax parce que yëg nañ ne alxuraan arab day ubbi am xel jàngu ko ngir bëgg gëm waaye daa bëgg doom ji tekki kon loolu jullit bi ko xamit nañ xam ne seen doom yi ak daara du responsabilité sëñ daara kese sëñ daara benn acteur la moom liy rolam ci daara ji mooy jàngale ak yar waaye nañ xam ne njaboot gi ñi njaboote gone yooyu ñoo war a yor daara ji nag kon li ñuy ñaxtu ci daara yi tumuraan ga fa nekk rafale ga fa nekk coono ya fa nekk mën naa dañ bu ci ñëpp jàppee Sëriñ Tuubaa wane woon yoon ubbi woon na bunt boo xam ne buñ ko sooboo incha allahu taala suñu doom yëpp danañ jàng alxuraan jàng mu rafet bi ci des it nag lim laaj yëpp ñu di ko def bokk na ci suñu njuum tey nit koo xam ne baayam da doon jàngale alxuraan mu jàngal mokkal rek ne sama baay da doon jàngale damay jàngale na sama baay doon jàngale noonu lay jàngale te ña doon jàngal ak ña nga jàngal bokkul koy it xam-xam boobu laaj jàngale ak xam-xam bu ñu jàngale am xam-xam taxut a mën a jàngale kon it di tàggat parce que bari na yu xew nii ay dóor yu métteeg yi wax yëpp li ko indi ci daara mooy sëriñ daara boo xam ne qualifié wu su qualifié woon dëgg-dëgg mën naa fexe ba gone yi jàng te dóor du métti kilifa ñëw na fii ci njaareel ku ñu xam sëriñ Tuubaa ne ku ko mën a jàngal te doo ko dóor laa soxla genn kilifa ne moom mën mënta jàngale te du dóor am keneen ku ne mën naa ko sëriñ jox ko moo ko jàng alxuraan ba mu mokkal te am yar mosu ko tey